jëm ci ak weddi wal bidaaxi ak ay bidaa wala xitaa bi ak yaraange ne am na ku ñu wax muhammad mu di ku bari xam-xam loolu te sellale ko wax na ci wayam ne ni alquran di waxe ak ni addis di waxe am ci dégg bu baax a baax du ca mën a ñàkk waaye ku jàpp rek zahir sa maanaam na yax ba dikki rek ci zahir te xamoo taawil ga mu nañ ko war a jàpp ci biir loolu mën naa andi ak kéefër mën a andi topp bi daa daal di yóbbu nit nag ci yaraangey àddunaak alaxira boo fi wasila ibni buuna nekk na ci wasilab ibnu buuna alfaxli may kuy alaalimi may aji xam alxaaisi ki aji làq jàmmal fadli aji bari ngëneel mu ne waru ba kufrin baraana ak kéefër naashi in gu di aji sosu mu sababin gu di guñu sababe xan joxani sax sin bàyyi ko rek ci réerëg jëmm umpaleg jëmm bi lisaanil arabi ci làmmiñu arab yi boo dee xool wasila ba ibnu buuna taalif te muy kilifa gu mag a mag nee na bari na ñoo xam ne weddi gañ weddi umpale làngu arab rek moo leen ko yóbbee alquran mi téereb jullit ñi ak addis mi wax yonante bi ñoo jiitu ci fu ñuy jëlee déggiinu lislaam kon nag ku umpale làmmiñu arab rek dégg diine na nga ko war a déggee dalay daal di jafe bu fekkee amoo ca ak tey akuk teewlu rek ak gëstoog laaj mën na am nga jàppee yaxub alquran mbaa yaxub addis noo xam ne wuute naag nam doone dëgg-dëgg ko te loolu mën naa tax mu pas pas pas boo xam ne ak weddi la moo tax mu wax loolu fa nasalu dana nu ñaan rabbana sunu boroom am nan wóolu te mooy mucc min dalaalin ci réer wal hadiya akuk jub fii jasmin ci yéene wa fi'alin ak jëf wa maqaalin ak wax bi jaay ahmad ci daraje ahmad wal ambiyaay ak yonante yi wal xulamaay ak way xam ñi maal awliyaay ànd ak daraje wàllu yi kon nee noog ñaan yàlla may nu mucc ci cànkute may nu nu amuk gindigu suñuy pas-pas jub suñuy jëf jub suñuy wax jub yal na ko yàlla may ci daraje yonante bi ak yonante ci des ak darajey wàllu yi ak darajey borom xam-xam yi faslun li ab dog la da ci wax lay yi nga xam ne mooy dëgëral ne ku yàlla yónni ku ne dana melowoo yetti melo yi nga waxoon muy dëgg rekk lay wax te du def lu yàlla aaye tey dana jotli lañ ko jotli loo ba mu mat tumata burhaanu wujjoo bi siddax yim topp lay waruk seenu dëggal alayhimoo yàlla na dollee nekk ci ñoom azka salaamay rabbihim gën jaa selli yaari musali seen boroom bu ne yaari musal salaamay dañ ca jublu rek asalaatu ak salaam muy teraanga ak jàmm law annahum donte naka ñoom lam yasbuqoo dëggaluñu la lazima kon war fii xabari rahmaani ci xibaarub aj yërëme ji may nun aw fen xulima wow xameef na ko li annahoo ngir naka yàlla saddaqa dëggalal na leen bi mojisaatin ci ay mojisaat naasi latin yu di aji wàcc makaana xabdi ci béré bëpp mu ne woon xabdi sama jaam bi day sadaqa dëggal na fii kullimaa ci lépp loo xam ne axbara xibaar na bihi ci moom xànni jële ci man ilaykum jëm ci yéen bilaa taxawulin ci lu dul pelamtu sos duural yàlla wala ftiraayin du caageenu dóor ne lay yi nga xam ne mooy dëgëral ne yonante yi yàllaa leen yónni te lañu waxit ne ci yàlla la bawoo ci dëgg-dëgg ci yàlla la bawoo nga xam ne kon ñoom ay ndaw lañu te it la ñu jot li lépp lépp lépp dëgg la la yoo koy dëgëral mooy bu fekkoon ne da nga ne ab yonante wax na lu bokkut ak la am day mel ne kon da nga ne yàlla suñ borom ci boppam moo wax lu amut ndax yàlla mi leen yónni moo leen di may ay kiimtaan yoo xam ne mooy tax ñu gëm leen kiimtaan ya day wecci yàlla waxan ne kooku day sama jaama maa ko yónni lu mu wax maa ko ko waxloo lu mu jëf maa ko ko jëfloo topp leen ci moom yonente bu ne kiimtaan ya ko yàlla yi may ba tax ñu gëm ko noonu lay demee mooy day wecci yàlla ne woon kooku sama ndawa ci man la bawoo topp leen ko ci lépp lu mu wax ak lépp lu mu jëf loolu nag kon ci la ñuy xame ne ab yonente moom dëgg rek lay wax waaye jomb na safaanub dëgg muy aw fen di bàyyi ko ci ku yàlla yónni waxiya moom mujisa amrun mbir lay doon xaariqun mu di aji xotti baax xadd xuri na moom lëkkaleef na ko bi talabil mursali ci sàkku kañu yónni yaa man yow mi nga xam ne fàttu na xellu naa wa salima te mu mucc min muharadati shay'in ci gaaralanteeg dara maanaam maanaam mu mucc ci dara dara luñ ko mën a gam-gam leel ka tolloo leel mu waafiqante aji dëppoonteeg daawal lazi woo teg ka nga xam ne xadd xamuma màgg na nde laa maa waxuñu loo xam ne ataa dikk na mu xaalifan muy aji wuutanteeg laxaañeel woote googee wala maa du caagéen loo xam ne it lam yakun nekkut mataloo ba muddayin di càkkutéefal aji woote ak yonante jalaa kok feeñ na dalay xamal mujisa mu ne mujisa bi ñu firee kiimtaan day nekk mbir mu xotti baax moo xam ne kenn mës a gis lu mel noona di am ab yonante sàkku ci boroomam yàlla daal di ko koy defal ndax ñu xam ne moom moo ko yónni faaw nag day doon loo xam ne duñ fa gis dara luñ koy mën a gam-gam leel te it la muy doon doon kiimtaan na doon la nga xam ne moom la yonante ba waxan ne ndax su ma ko defee ngeen gëm ma ñu ne ko waaw kiimtaan ga na bokk ak la mu waxan ne moom lay def waaye su ne woon naa xar géej gi ngeen di gis ngeen xam ne yàllaa ma yónni ñu ne ko waaw defal mu def nag leneen lu bokkut ak xar géej ga lu mu yéeme yéeme de su ko tuddee moo ji sa moom kay la waxan rek la def loola kamitil irhaasi ndiki kam tën ga tën lil ambiyaa yi ñeel yonante ya xabla nuzooli wax yi di samaa yi ci njëkk wàccu wax yu borom asamaan idi ngir daaka loolee ta siisun ak fond la wala ak sos la lahum ñeel leen xal ihtimaali nubuwatin ci yanuk ak yonante abaiha ay diis diisam naa ina nga sorenteeg ab dalaala réer ga bakal karaamaati ak niki karaama ya lil awliyaa i ñeel waliya al abidillaahi ña di way jaamu yàlla bilaa riyaa in ci lu dul ngistal daa wax ne lu mu yéeme yéeme rek moom ndegam waa ji woote ab yonante feeñalu ko dee su ko tudde moo ji sax mu misaale ko nag ku yàlla yi bëgg a yónni tàmbalee feeñal ci moom ay xar baax di ko wan ay xar baax di ko wan lu yéeme yéeme loolu dee su ko tudde moo ji sax ndax kooka tàmbalee ko te woote ak yonante loolu moom doonul lu may rek yàllaa koy waajal bëgg mu dëgër ba nga xam ne bis bu ko yónnee rek mu mën a yanu bu baax a baax la mu ko yónnee ba tey waliyu lu yàlla may ak yonante mi mu wajj sa rek mën na koo may waliyu waaye nag da nga waliyu moom wóotiwul ak yonante la ko yàlla wan ak di ko jaarale ci moom ci ay xar baax dañ koy tuddee karaama waaye kenn du ko tuddee mu wajj sa bu misaale ko ka kasratil ilmi niki bari xam-xam bila taallumin ci lu dul xamlu ba misli tabasirin ak kem ak gisal li sax sin ñeel jëmm xadd xam yi ko gumba na waka tachaxusin ak niki soppiku jëmm waxil waxil mi xaali saxsin ak xam mbirum jëmm bi fikratin ci xalaat bila ishkaalin ci lu dul lënt day misaale karaama gu wàlliyu ni ñenn ñi def jekki-jekki bari xam-xam lool te jànguñu ko di taalif ak wax xam-xam yéeme yoo xam ne jànguñu ko ak lu mel ne fekk gumba ñu wëlbati ko muy gis gis bu leer mel ni mës sa gumba wala wàlliyu jëmmam di soppiku mel ni mel naa wala mel na jëmmam mi ngi fi te fekk na kat nekku fi lay jàkkaarloog jëmm ji mel ne mu ngi toog te fekk na moom nekkul fii ma nga feneen ak nekki yàlla xamal leen mbiri nit ñi nekki ñu jàkkaarloog kenn daal di xam ne moom mii kuñ bind ci texe la wala kuñ bind ci texee di la wala yeneen mbir yu làqoo làqu te yàllaa leen koy xamal xamalu yàlla googu mën naa am ci gannaaw bu ñu xalaatee waaye mën naa am itam mu jekki-jekki rek xamal leen te jaariwuñu sax ci xalaat wax ya ñoom karaamaat yooya nag tarhibun ak xemem loola lahum ñeel leen fii maa ci la nga xam ne daamoo sax nañu bisi ci moom li wujj saw ngir bu dee fi fay leen bil maqaami ca maqaama ba an naa bii bay aji yëkkati ko li koy yaddoomoo ngir ñu sax ak dëxëra ci jëpp jamono fi rashaadi ci ak jub mi nir tiyaadi nafsi ci tàggat bakkan wal awraadi ak yërd boo gisee wàllu yi yàlla di leen may xeeti karaamaat yooyu dafa bëgg lañu nekk ci tàggat seen bakkan ak saxoo wërd ak saxoo farlu ci lu baax loolu la bëgg rek ñu gën caa yokkoo yokku gën caa jëma jëm kanam te ku leen gis xemem seen bi ba roy ca ñoom li ànd zawni ngir naka yile yaar yaax sulaani danañu amee bit tala bi ci ak sàkku boo xam yi ak ludul ak sàkku bi xak sihaa ci safaanub mu aji sa milta yàlla nga am al adaba teggiin yett yi nee na wuute nañu al mu ajisatu al irhaasu al karaamatu yett yi li ñu wutee bokk na ca moo ji sa moom li la ko waxee day doon loo xam ne kay woote ak yonante mooy sàkku yàlla defal ko ko yàlla it defal ko ko ngir ñu gëm ko xam ne moo ko yónni al irhaas ñu koy wax tën wala waajal yàllaay jekki-jekki defal ko te muy bëgg a yónni ndax rek bu àggee ci mu yónni ko mu mën a taxaw taxawaay bu mat sëkk ca la mu ko yónni karaama it léeg-léeg wali yi sàkku ko léeg-léeg itam du ko sàkku yàlla mën naa jekki-jekki feeñal karaama ci wali yi mën naa itam nag wali wa sàkku karaama googee nag yàlla door ko koo defal nga xam ne kon karaama mën naa amee ci sàkku mën naa amee ci lu sàkku li annaha ngir naka moom mu aji sa tashhadu dana seere wa shahaadatu te seere min qabli daawaa ci njëkk ak woote laalahaa déddi ko ñeel ifaadatun ak jariñ te waru bama botalat baraana bu yàqoo sax a shahaadatu seere sa bi rafi ci yëkkati ga xabla raw mi ci njëkk sàkku ga li na nga méngoo mooy na nga féetewoo al ibaadata jaamu yàlla li tax moo ji sa balaa ñëw rekk fekk kooka woote ak yonante mooy moo ji sa moom day seereel kay woote yonante wan ko ne ko li ngay woote kat dëgg la ba nit ñi xam ne la muy woote dëgg la kon nag balaa mu la ñëw rek fekk woote nga am ba noppi nag mu topp ca waaye bu ñëwee te fekk kooku wóotiwul ak yonante du mën a seere kon ak yonanteem ndax seere ci njëkk ak woote di am du am njariñ ne seere balaa baax ñu joxe ko ci waxtu wañ ko sàkkoo waaye bu ñu joxee seere sa njëkk waxtu wañ sàkkoo seere sa rek loola mën naa daldi yàq seere sa wasum ni yat tuddeef na ko moo aji sa tan moo aji sa aji lottale li am na xaa ngir naka moom yoo aji su dana lottal sha'nu xaa mbiram xeyral ambiyaay ndara yonente ya li tax ñu koy tuddee moo aji sa te moo aji sa di firi aji lottale lu kenn mënut mooy rek yonente ba ko yàlla may mu feeñe ca moom ndax ñu gëm ko moom rek moo koy man waaye keneen du ko man moom rek koy man foofa wamaa yëf yi loo xam dana dikk moo gisatan nabi yi mbir mu muy moo gisab ak yonante yajoosu dana jaadu fii karamatil wali yi ci xarbaaxu waliyu ndax fa ambiyaullaahi yonante yàlla yi maasoo moo na ñu ñu musal lañu wa awliyaullahi xeej yàlla yi muy waliyu yàlla yi mahfooso nañu ñu wattu lañu ne lépp lu yàlla may ab yonante muy mojisa lu mu rëy rëy yàlla mën na koo may waliyu muy karaama ndax waliyu yi ñoo wuutu yonante yi teyit ni yàlla yu musale ab yonante ba du jàdd def lu aay ba tey noonu lay sàmme waliyu moom it ba du jàdd def lu aay waaye nag am nañu wuute yom lewuñu sàmm gu leen yàlla sàmm ci sori lu aay moom lay bëgg wax washtarakoo bokkaale nañu fi ismatin ci ak mucc laakin na tii waaye gile jaaisatun aji dagan la watil ka tagoogee xan nag gaar na maanaam feeñ na xatman doon lu war hada lii kalaamu faxlinaa mooy waxi sunu kóoy la almuxtaari te mooy cheikh yu muxtaar aljihbisi kadi ab gëstukat almujaddidi kay aji yeesal almibraari kadi ab baaxaakon alayhi yàlla na doole nekk ci moom ridwaanul jalili ngërëmal aji màgg ji abadan faaw wa kulli man ak képp koo xam ne xafaahu topp na ko min zawil hudaa ci waroom njub ga liñ la wax léegi ne ab yonante yàlla da koy musal ci jàdd aw woon ci aw woon rek lay aw wàll yu noonu daa wuute yonante mi nga xam ne moom yàlla daa wax ne fu yonante aw rek aw woon la faaw yàllaa koy sàmm ba du jàdd mukk mukk mukk yoon wa ndax bu jàddee te yàllaa ne woon topp leen ci moom day mel ne kon moo jàddulu moom yàlla loolu mënta am wàl yu nag moom yàlla mën na koo baaxe ni ak yonante mu bañ a jege dara luy nuru jàdd yoon waaye nag mën naa am itam ñenn ci wàllu yi yàlla nattoo leen jàdd aw yoon mbaa sax yàlla far leen sëlbu ñu far yàqule loolu lépp moom mu ngi takku ci coobare yàlla nga xam ne kenn ci wàllu yi mën naa nekk ca bopp ba ci ëllëg sa ci coobare yàlla mu nekk ca geen ba nii ñu ko teqalee nga xam ne mucc gi ci jàdd aw yoon ab yonante dana koy am wàllu dana koy am waaye nag taxul ñu bokkale ko dëgg-dëgg noonu ñu ko teqalee noonu la ko siif yu muxtaar teqalee muy gëstukat bu rëy rëy di ko baax a baax mu ñaan yàlla dolli ko ngërëm dolli wàllu ngërëm sax képp koo xam ne yaa ngi koy jéem a roy ci njubam nga ak mbaaxam nga wa baytu cheikhina baytu sunu sëriñ ibni buuna te ma ibnu buuna suwi ba jubaleef na ko bi qawli ba'dil awliyaa yi ci wax yi lenn ci wàllu yi al nujabaa yi ña di ay tànneef waxatuhu dogoom nga bimaa ci la nga xam ne an nabiyu ab yonante axbara xibaar na bihi ci moom xatmun aji war la ak suufu ab safaanam al waliyu moo di waliyu am na bayt yu ibnu buuna waxan dañ ko jubbantee ci waxi kenn ci gaa yu baax yi te ràññi ko ci mbaax di ay waliyu am na ca koo xam ne na mu waxee moo jubbanti wax yi ibnu buuna ja dane ab yonante moom bu xibaaree dangaa war a gëm la mu wax dogu ja waaye nag waliyu moom bu xibaaree te la mu wax leer la nga gëm ko bu fekkee nag lu waliyu wax leeru la la tëgal mooy nga ne man day xawma waxi waliyu ndax man nit kese laa te ñoom nag niti yàlla lañu kon ab yonante lu wax dañ ko war a dëggal dogu ja kenn sañu koo weranteeka sikki sàkkaaka weddi waliyu nag moom bu waxee duñ wax ne lu waliyu wax rek ñu war koo gëm dogu ca dañuy wax ne su waliyu waxee te nga xam la mu wax ak nam ko waxee gëm ko loola baax na su fekkee nag la mu wax xamoo ko duñ la wax ne la gëmal la mu wax waaye dañ lay wax ne la na nga ca maandu ndax ndegam moom nitu yàlla la fa muy waxee mën naa am yow sa tolluwaay ëggu fa mën ngaa bañ a dégg ay waxam kon nag bul weddi na nga ca maandu rek degam xamoo ko ba mën koo dëggalal am na wàllu yoo xam ne sunu boroom moo leen jox ndigalul woote ñooña moom dañuy boole shariha ak xaqiqa du ñu wàcc yoon wàcc zahir mbaa ci baatin am ci wàll yoo xam ne nag amuñu ndigalul woote ñooñu nag mën naa am ñu feeñal loo xam ne ci zahir mën naa nuru xëtt shariha loola nag ñoo seen boroom ñoo koy xam say boo rekk kuy nitu kese moom mu maandu ca razaqanaa yal nanu wërsëgale xaaliqunaa sunu aji bind ak nuuréy ni yaari leer ya wa ahsanul xitaami ak gën jaa rafeti mucc fi daaree ni ci yaari kër yi bi jaay ahmad ak darajay ahmad wa man ak képp koo xam ne talaahu topp na ko salla yàlla na dolli tedd nga wa sallamati dolli wóolu alayhi ci moom allahu yàlla wal aaj ak ñoñ ña wa sax bi ak saxaaba ya wa man ak képp koo xam ne ya diinu dana diine woo seen diine xaddadama limut la nga xam ne kaana am na wama ak la nga xam ne yàkkoonu dana am dafa ñaan sunu boroom maynu leeru àdduna gu alaaxira maynu mujj ga gën a rafet ci daraja yonante bi ak darajay mboolem ñi nga xam ne ñoo ko topp mu ñaan nag ñoom ñëpp mu yonante bi ak ay mbokkam ak yu saxaabaam ak ñi nga xam ne ñoo jéem a aw fañ awan ñoom ñëpp dafa ñaan yàlla dolli leen teraanga ak jàmm te baril teraanga ak jàmm ja ñi limub li mu sàkk baree ak limub lam nar a sàkk te sàkk gu ko yooyu yaar boo leen boolee nañu baree yal na nu yàlla barilee salaatu ak salaam ci yonante bi ak mboolem ña ko topp tummata burhaanul amaanati topp layu amaana lahum ñeel leen alayhimoo yal na doole nekk ci ñoom azka salaamay rabbihim gën jaa selli yaari musali seen boroom mooy law annahum doonte naka ñoom xaanoo war nañu bima xaraamin ci aji araam boo jàngee bima xaraamin maam yi day nekk maam dooleen boo jàngee bima ci loo xam ne xaraamun aji araam la dañu nattale bima huwa xaraamun aw fa aloo wala ñu def almakroha lu ñu sib xay sukkaanoo fu ñu man di nekk lan xale ba kon wëlbatiku almakruh lañu sib wal muharramu ak lañ araamal taa taaxatanaa di sunu topp fi xaqihim seen aq alayhimu yàlla doole nekk ci ñoom salaatu zil xarsi teralu borom aras ma asalaami ànd ak dolli woolu bila nihaayatin ci lu dul daytal walan fisaamin du caagéenu ak dog li annahoo ngir naka yàlla amara digal na kulal waraa képp ci mbindeef yi bil iqtidaa i ci rey ga bi xawlihim ci seen wax wa fi'lihim ak seen jëf wala say amuru te du digle rabbu samaay borom asamaan bi maa ci loo xam ne xadd xaruma araam na wala bi maa du caagéenu ci loo xam ne karihahoo sib na ko amaana mooy ka yàlla yónni sàmm kóoluteg yàlla gi bañ a def lu yàlla araamal bañ a def lu yàlla sib loolu da nga ne woon mënta ñàkk mu ne loolu day moom li lay xamal ne mënta ñàkk mooy yàlla moo leen yónni wax ne fu ñu aw rek aw yoon la kon nag bu leen seetaanee ba ñu jàdd def lu araam mbaa ñu jàdd def lu ñu sib ba doomu aadama yi roy leen ca ah day mel ne kon yàlla moom moo araamal ba noppi mbaa mu sib ba noppi wëlbatiku ne topp leen leema araamal mbaa leema sib ndax ndegam moom moo ne samay ndaw lañu maa leen yónni lu ñu wax topp leen ca lu ñu jëf topp leen ca bu leen bàyyee nag ñu def lu araam mbaa lu ñu sibit ba ñu roy leen ca day mel ne kon moo araamal mbaa mu sib ba noppi wëlbatiku def lu la mu araamal mbaa lu mu sib loolu nag mënta am bi ayni burhaanil amaanati ci jëmmi layu amaana zahra la feeñe dalilu tabliixin layu tabliix li maahirin ñel aji ñaw nabara kook seetantal na bi nga layalee amaana wax ne ku yàlla yónni du def lu araam du ko wax du def lu ñu sib du ko wax bi nga ko layalee rek dal ngay layal tabliix jottali ndax ñàkk jottali moom ak nëbb lay doon te nëbb lu araam la te nee nga ab yonante du def lu araam du ko wax te it day mel ne bu leen yàlla seetaanoon ba ñu nëbb lam leen jottali loo day mel ne kon boroom xam-xam itam dana am sañ-sañub nëbb dara ci shariha ndax roy ca yonante ya nga dolli ca ne ka yàlla yónni bu ko wóoree ni bu ko yónnee ne ko jottalil du jottali kon du ko yónni kon daal ca dëgg-dëgg tabliix moom yomb naa layal dagam dégg nga rek layu amaana amma dalilu naa ndaa sunu tegtal xalaa kawnil xaro bi ci nekkuk xaro bi ga mu jaw wasan di lu ñu daganal fi xaq yim seen àq mitlal maro di kem tawat alayhimoo yàlla loolee nekk ci ñoom asalaat dolli teral wasalaam ak dolli woolu maxtalafa li feek mi ngi wuute mbaa li feek mi ngi juuyaloo ab diyaau leer wa zalaamu ak lëndam fa bi mushahadati ba'di salafi nekk na ci jàkkaarloog lenn ca dawal ba mi way jiituña ahli samaanihim ña di yéen seen jamono li ba'dil xalafi ñeel lenn ci wuutaat yi koy wax kuutaat kuutaat mooy wuutaat rek mooy ñi fi wuute ñu jiitu woon li annahum ngir naka ñoom xadd xaayanoo jàkkaarloo nañoo maa la nga xam ne waqaxa xewoon na bi daloon na bihim ci yonante ya minal arabi ci ay xeeti xarab xiina waqaxa ci waxtu wa mu xewee li ñu xamal ne ku yàlla yónni lay dal nit ki kese yi mën na koo dal ndegam du xeetu manki mbaa xeetu lu tax ñu koy daw li ñu xamal loolu moom ña jamononte woon ak yonante yi dañoo gisan yonante yi loola di leen dal nekki suñu yonante bu baax bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ña jamononte woon ak moom gisan nañ ko mu daan tawat ak wér gisan nañ ko bu daa xiif ak a mar di sonn ak a noppalu di jihaad ci yoonu yàlla niñ ko waxee woon rek ku yàlla yooni moom day tax mu gën a mat mooy mu wàcc ba tolloog nit ñi di defee nañuy defee di waxee nañuy waxee bañ xam ne moom mi aw rawteef la manes naa roy ci moom du malaaka du leneen ña jamononte woon ak ñoom ñoo ca teg seen bët di ko nettali buy ñëw di ko nettali buy ñëw ba mu agsi ci lu mu wóor ne nu moom niñ ko nettalee lu am am la ñi ko wax ñëpp mënuñoo maase ci wax lu amut imma li ta'zimin benn ngir màggal li ajrihim ñeel seenu bu yool xadan ci ëllëg aw annaha wala naka ñoom xarab bi yooyee jarat daw nañu li tashrihil huda ngir yoonal jub ga aw li tasallihim wala ngir seenu miis ani dunya walis àdduna allati mi nga xam ne lay sat tuwaasinu déet muy màndaxoonteeg maanaam déet muy tollonteeg la daal diil millati fa borom diine ja junha baodatin laafu yoo awil ilaani wala ngir feeñal ga xissata qabriha